combat des guerriers le combat des titans le combat des bad boy Ada Fass Zarko ce dimanche incha allah rabbi fële sa arène national ñaari xare yoo xam ne fu mu toll nii ñoom ñaar képp ku si daan war a toj làmb espoir lañ si làmb mais mu fekkee kii di Zarko yàgg na si làmb def na lu nekk si lamb mais expérience l' expérience face à la différence ce dimanche incha allah rabbi ñoo ngi fii nag si koñu Ada Fass pour lan xool seen supporter est ce que pare nañ mu toll nii maa ngi gis supporter Ada Fass nekk ngi yëpp jeex na. non dimanche na neex na na xumb mais ñoom na lañ la war a ñëwee stade la lañ na la indi seen mbër fu mu nekk si benn foobu la nekk la lañ la war a def euh, kii di Zarko loolu lañ ñëw pour xool topp ma jaadi xool. comme da ngay siyaar. maa sant yàlla bu baax Bas. seen am dimanche. bu neex la rek mag bu may xale sens xale bi da koy respecté ku xam Zarko xam ni ndaanaan la mais day daj ak ndaanaan nag. Ada Fass waaw mais naka respecté rek. Ada Fass dësaat ko du risque si moom dafa teel de. xale du jël risque xale du sonn dafa bëgg a yëg si kaw lii porte la rek dañ ngay daan gën a yëg si kaw. mais ko ëpp doole. amul benn risque Zarko du dara fugg la am rek mais ñemewul taxaw ak booy bi jàkkaarloo moom léetoo arbitre bu ñu ciblé rek day jébbalu. ñu bëri si amateur lañ à chaque fois kii di Ada bu jàkkaarloo ak Zarko si face à face yi day ragal. ko ragalu ko gis nga seen signature bi mujj 2 gis nga booy bi dafa ñëw wan ne ko ragal boobu amul dama la joxoon cër nga dépassé cër bi yàq otom yooyu yëpp nekk si booy bi wan ko na ma ragaluma la ni nga ko bëggee rek loolu laa lay fekk see. nga Ada Fass sañ naa bëri jàkkaarloo Zarko di ko di moom. déggoo ma la Zarko dimanche incha allah bu xeexee ñu duma ko mu daanu. bu bëree ñu jaan ko jël bu amul. naa koy wax nii rek mais gëmoo du dërëm ay baay Mandione la bëreel fii rek boo xoolee combat Zarko Baye Mandione ñaata erreur rek Zarko def sañu ko bëreeg Ada Fass li mu bëreeg Baye Mandione bu ko bëreeg Ada ngeen gis jël bu amul si àdduna. mais boo mu ñëw pour bëree mu ñëw pour xeex. mu ñëw moom xale la mu ñëw imposé mais ak calcul xam ne magam lay bëreel. mu déglu ko lu mu ko may mu jël te moom mu bañ ko may dara. dimanche da ngay isaat. dimanche maa yóbbu. qualifié waxoon nañu loolu boo ñëwee ba technopole ngeen di fekk mu fees dell te ba ñëwee ñoo feesal stade fu ñu toll nii booy amul ku ko ëpp supporter Zarko amul dara Grand Yoff day bandi bandi rek Ada Fass ko fa ëpp supporter foofu daa fàttali ne Grand Yoff waa làmb joolaa ñoo fa dëkk te ñoom ay doomu Fass lañ ñàkk supporter a taxoon mu daw dem kaaw ba ñëwul dara ñaari cuune la bëree fii benn cuune bu nekk fii nii ak paa bu nekk fële na le moom nee na mag la mag bu am doole mu ngi daja xale bu am jom bu dimanche bu booy bi simee ko ngeen xam ni Zarko liggéeyu ok gars yi. Fass booy wax ba gis kii da noppi. baax mu ñëw wax ba pare ma kay kaay. yow yow pare yow wax baax kii mu wax ah, kii wax baax. waaw léegi interroger kii. ma ñëw ko après yow xam nga ah, nit nga yow doo xool. kon da ngay eh, bu fi waxati waxu paralu booy boobu noonu gërë bërëb boobu grand boobu noonu paa boobu noonu waxam yooyu noonu. ay doom ngeen wax wax yooyu. non non non non non nag de ñun du ñooy daw làqu de. waaw ñun doomu Mérina ak la doomu Mérina lañ doomu Fass yaa may dégg ñun amul lenn lu ñuy si kenn ay doo xool ak yooyu noonu doo regarder yooyu ñun. saa ma doo xool dafa juum rek. dafa juum wax jeeg yooyu moo ko ci. ñun du ñu du ñu modifier ay kalan ay wax ay wax non non. waaw ñun Ada Fass la ñuy la ñuy dund soo ba ngoon jot si Ada Fass la ñuy dox. yaa may dégg si ay affaire Ada Fass la ñuy. ay na saa waay dafa rek maa ngi ñëw. Ada Fass maa ngi ñëw. même ma deux minutes si Ada Fass laay wax. waaw est-ce que dégg ñun Ada Fass la ñuy topp soo ba ngoon jot yaa may dégg te incha allah le 15 paa boobu noonu du ma tudd sax turam loolu tudd Zarko loolu tudd dina xam dina comprendre bu ñaari yaram yi laalante dina xam ni lépp lu doon lépp lu waaye doon jaay jour boobu lay jar. foo ko parce que si mën bëreew booy bi ak gëm boppam. bi mu dafa mën bëre. non non gis nañ ko tamit quoi yaa may dégg kan moo dàq làmb si kan moo dàq bëre ci làmb ji. ah. gars yi Balla Gaye la wax. ñun dañuy lekk Balla Gaye. dañ koy galaxndikoo ñun. déggoo ma de Ada Fass ñooñu ñëpp kum si arrêté kum si téye bu booba boole fi ak ay mois ci kanam waxuma la ay at de ndax ay mois ci kanam dañuy am ñooñu waxuma la ay at de fi ay at ay at dafa sori bu ñu jugee ci lii si ñooñu lañu jëm. ñoo ngi leen euh, moom. kooku du ñu xeex moom déggoo ma de. kooku séqu ñoo ngi moom ay xeex xam nga ñu nag waa Grand Yoff dafa am loo xam ne nag dafa am suñu diggante yaa may dégg ñun nu ñu xeex ak ñooñu nañ ñëw rek tëdd ndànk ñu dem suñu yoon te ñu xam ne ñun xooluñ ko xooluñu Zarko Ada xoolul Zarko. mais Zarko taxu ko jug. mais Ada Fass bu ñu day mel ni dafa ko ragal est-ce que ragalu booy kan Ada moo mel ni ku ragal Zarko ah, non loolu dafa mel ni yow seetlu wuloo li ngay wax de. gisoo amateur yëpp loolu yenn amateurs yi dañuy far yaa may dégg ñun faruñoo ak Ada Fass xam nga lan lañ faral si Ada Fass xelam ak jukkoom ak mën-mënam mais ñun du nit ki lañ faral ñun Ada Fass dafa nekk suñu deret dañoo am lu ñu bokk moom parce que yaa may dégg bis bu jàppee Zarko nga xamante ne doomu nga xamante ne li woon li woon si paaw faas yi li woon si paaw faas yi ah moo nekk si booy bu ndaw bii deret du fen billaay deret du fen te Grand Yoff boo fa duggee Grand Yoff bu ñu xamee làmb faasa tax yaa may dégg Grand Yoff bu ñu xamee làmb faasa tax est-ce que mooy papaam. mooy papaam mooy mën na ko papa c'est normal ah <laughs> 17 man ba may am doom 16 ans la am loolu <laughs> ma de mën na ko papa papaam la. loolu de. bëre la bëgg wax. non garaawul moom waxee ko ci bëre si beneen domaine la koy waxee mais waxee ko ci bëre garaawul moom sunu papa la amul problème moom du papa Ada Fass kase sunu papa la ñun ñëpp mais papa ji ñuy jàpp la muy yëkka muy jug dañ koy jàpp yëkkati ko dañ koy sempi mu jug ba ci kaw fësate ko mu daanu. waaw. Paa yow moom commencé nga imité yow la xoolal ma de. faa nga ko ba Zarko daa am lu may fan si moom. waaye ñaan suñu mbër daan rek yàlla defal ko jàmm. yàlla may ko ndam. ndam dafa lu mooy ñëw bëre ñëw xeex. waaw ñun am nañ gëm-gëm boobu si suñu mbër. moo tax sa mbër am na gëm-gëm boobu. waaye moom moom muy tax ngem moo ñu ko gën a am fuuf moom loolu moo ko tax a jóg di dem indil ñu ndam ñëw loolu lañ koy ñaanal loolu lañ bëgg tamit. Zarko du risque si yéen. nan la nekkee risque. Eh, nan la nekkee risque si ñun. boo xam ne ngeen xool mën nga jaar beneen porte bu Zarko Zarko bi moo dër moo kiis. daa dër kiis loolu gars yi yëguñu ko sax billaay. yëguñu ko sax billaay. tiset ñaa ngeen ko jëndee. tiset yi a ah, ñun dañuy jënd rek de ñun moom bu dee tiset moom. dañuy sol ba keroog làmb ji di commencé open press bi la ñuy commencé sol ba jouru làmb ji. loolu yàgg na. dañuy bu fu ko jëlee. waaw doomu dëkk bi la te ñun ñu manqué woon loolu manqué woon mbër bu fi juddoo ñu am ko nag dëkk si dëkk dëkk suñu koñ jamonoy Tafa Gueye lañ ko gëjoon am te dañ ko am nii nag waaw moom rek lañuy faral ñun duñu wàlle yaani fen suñu dëkk rek lañuy faral. waaw làmb affaire ak quartier ñun suñu quartier rek lañuy ñuy topp kese amul leneen. xali topp. xali boo paree rek wax ma. naa leen bi. maanaam. naa si ku la wax loolu yow. sa gars ah, ah, lu ndaw la. lu ndaw yoo waaw. loolu tooñ la. mooy yow yow Zarko instant bi laa ni si li ko soxlaan dañ koy si moom Zarko tapet la. waaw ah, loolu da koy wax nii pour combat bi nii mais xam nga yow Zarko tapet yow. la booy baa fit ah booy baa ka daa ko bëri bokkuñu sax Zarko li muy li muy wàllu lay ut rek barki Serigne Touba. lu muy wax noonu ay maam Thierno ak affaire parce que xam na ne booy bi maanaam booy bi day bëggee maam Thierno borom daaru moo tax koy jéem a jaxase eh, affaire du loolu. loolu leneen la ñun lu ñu soxla mooy que jour bi ñëw mu ñëw taxaw Zarko bu daan woon sax daan woon ñaret Ada Fass da ba ci kaw yëkkati ko ba ci kaw dóoraat ko suuf mu gën a daanu Zarko duñ ko bàyyee tapet la te mënul fexe fexe fexe ba booy bi da ko war booy bi war. doo jàpp ni yéen supporters yéenay wax ne mais Ada Fass sax ñu jàkkaarloo ak Zarko naa moo ngi mooy problème bi xam nga Sénégal mooy problème bi gis nga Balla Gaye ba nga fi booy ñaar tëbalee wax ak moom gars dañ nekkoon dañ jàppoon ne kii am na am du fen comprendre nga Zarko mënul mënul mënul mënul mënul magee booy bi 17 ans comprendre nga bëgg taxaw naan maa la ëpp doole maa la gën a loolu amul Zarko billaay walaay tàppet la demewul booy bi Zarko keroog face à face lan moo tax mu daw dem Gambie ak yooyu face à face bu mujj bi lan la defoon booy bi ba mu taxawee jàkkaarloog moom taxal talal ko loxoom dafa tiit parce que moom jàppaloon ne booy bi day màgg booy bi day màgg jour par jour barke Serigne Touba xoolal dafa tiit ne booy bi dafa tiit ba ne booy bi da nga tegle ba mu koy wax teyu ko sax. naan booy bi da nga tegle booy bi xoolal booy bi ne ko moo ngi nii xoolal. billaay walaay tàppet la. waaye yow dama la ne lu lu booy bi actuellement nii xoolal sekkeegul sax. booy bi xale bu ndaw la te xoolal gis nga bu làmba ji. arbitre bu taxawee ba làmba ji xam nga ñuy waaye sifflé ci la Zarko di xam ne du si doole bi du si xam-xam bi du si bëre bi du si fit bi. billaay walaay nee naa la yow Zarko ñi ànd ak moom Ada Fass la ñu faa. Grand Yoff Ada Fass moo fa ñaay Grand Yoff chaque jour moo ko Grand Yoff njaago fa yi Fass lañ jóge dem dëkk Grand Yoff waaw ñooñu ñëpp tey bu taxee wax ak ñoom ñooñ làmb joolaa bi lañ jógee dem dëkk Grand Yoff Grand Yoff bàyyi kay dañu bàyyi Zarko di tapet combat bi amu si dara wax la si am. ban conseil ngay dafa war a ñëw pour bëre wala pour nga xeex. lu ma koy conseil si combat bi daal ah mu def li guy gi defoon contre amaa Baldé rek arbitre ne prix moo ne ginnaaw jat jat lu affaire yooyu comprendre nga booy yëkkati ko dóor ko suuf mais bu dul loolu day métti moom de te booy day rëkk ndigg booy bi la booy bi man gis si moom nii daf kan booy après xool dafa na rëkk ndiggoom gis nga mag yi ku si daanu am problème mu tànk gisoo balagee mu daanoo te loolu laay bañ mu dal ko nag man ma sañoon arbitre bu ne pip moo ne ginnaaw saale def lu muy def booy bi yenn ko suuf a jóg xam nañ ko bu baax waaye ku ñu tax a jóg kenn la waaye may siita man maa ko waxoon keroog waaw waaw. xale man damaa bëgg jom wàll mu demee nii geen. illaay wallaay kooku du ñu mooy fenn parce que dafa taxaw wax suñu loo xamante ne il faut ñu woon ko leçon parce que Siteu bu ñu dajee bu ñuy dajeeg poulain mu taxaw carrément ne mënuñu bëre amuñu xam-xam. comprendre nga loolu siisu la dajal. waaw mais parce que day siisu parce que lamb ji actuellement ni barke Serigne Touba laa la waatal lamb ji actuellement ni xoola xale bu ndaw bi la ñu wax doomu Ndakaaru bi borom Ndakaaru bu jugee ndakaaru jug borom dëkk bi. waaw ah, loolu d'accord na si mais borom dëkk bi moom kenn la muy Siteu. dama la ne dama la ne aada démb rek Macky Sall woo na ko di ñaan njëkk ne ko xoolal ndànk-ndànk rek yaa moom Dakar yaa moom dëkk bi ñu ne ko waaw loolu lay demee président sax bu ñu woowee dañu woo dañu laaj njëkk waxuma la ak nag booy genre ndaama boobu noonu xaw ma dafa xees xaw ma dafa ñuul pël Fuuta la xaw ma. joolaa bi tukulóor bi joolaa bi. Ah, ajuma jàll xaw ma. ajuma jàll dafa ñu tax a jóg. barke to Touba ajuma jàll la ñu jóg. billaay wallaay loolu la ñuy toog. waaw Mbine dañoo pare quoi. ajjuma bi rek la. Kamay na nga. lépp jaam. yaa ngi cool. nice jaam. nga ni ka mooy sël bu ndaw bi. sël bu ndaw bi. Arafas. yéen woon yéen ay turu jàmm rek ay Arafas boobu dëkk bi ay Arafas sël bu ndaw bi yow am na tur ba pare. yow bu laajtee sël bu ndaw bi. gaynde gu fàqee Fass jëm arena xam nga ne coow li day bëri. Ah, mais Fass ak arena sorowul foofu. dafa mën a jóg bëri. bu laajte yoon bi rek xam nga ne gaynde gu fàqee Fass jëm arena yow leer na ne coow li day bëri. mba mbaboor da ciy topp. mais tim bu jógee Grand Yoff ñëw arena coow day bëri. non bu laajtee Grand Yoff foofu ñu wax moom. Arafas Arafas moom moom Grand Yoff Ndakaaru mbëru Ndakaaru ngay laajte Grand Yoff. Ndakaaru mit naa affaire yooyu noonu. yow Ndakaaru la ñu wax. Ndakaaru la ñu wax amul feneen affaire yi est bu ndaw bi la. Zarko li ñuy entraîné moom leer na ko ne du moom bu doon moom rek Arafas day tëdd nelaw xam ne ku muy bëreel màgget la. buy laal muy jóg moom loolu leer na ko. bu ko boo gën a dërki si mbëri Zarko lay wax. bu gën a. bu gën si mbëri. dërki boobu dañ ko jàppalewul ak ay ay ay ay ay frein nu ñu koy waxeetee sax ay kaabalu frein rek boobu jàppewuñu ko ko ay kaabalu frein lu leer laa lay wax ni Zarko Zarko dërkisul xam nga kan moo dërkis sëll bu ndaw bi bu mu laajte na góor góorlu moom Zarko. baay booy bi xam ne booy bi du pour du pour moom dañ koy may nii rek bës pour mu xaw a jógaat du moom wax na ko li ñu ko fay ci diggante booy bi fay ñu ko kenn mosuñu ko fay xam na lu tax mu jël booy bi. bëri moo tax. waaw a bëri moo tax ñun soxlawuñu ko dañ koy mayaat nii rek pour mu jóg mais moom leer na ko ne Zarko euh, Ada Fass du pour moom. su beneen bunt bu dul sarko bunt ñun bunt bu ñu jaar yoon la ñun dañuy daw rek du ñu taxaw amul arrêt amul arrêt dañuy daw rek. xam nga léegi dañ doon daw mais léegi dañuy naaw amul arrêt lu leer laa lay wax ni Zarko buñ ko jàppee góor Zarko yow la ñuy waxal dëgëral sa bopp. ajuma jàllu dëgëral sa bopp. mo yow bu ndax turam. ma ban turam yow ñun faale wuñu kooku noonu góor yow laay waxal. téere laa lay wax góorgóorlu dangi dangi ñoo taxaw dëggal sa bopp boo góorgóorloo dangi dangi ñoo dëggal sa bopp di nga xam ne lépp dëgg la. sël bu ndaw bi nii moo màgg gane gu faqee Fass jëm arena coow li sakkan lay def lu leer nag laa la wax. dafa coow dina bëri dina bëri pousse. salaamaaleykum maa ngi nuyu commune Fass Colobane Gueule Tapée ma bëgg xamal ne waa fii nu mu tuddati. Grand Yoff diggante commune bi ma la tuddal noonu ragal juddoo fi si li ma yaakaar quoi ragal juddoo fi Zakko nag. man sa per bu yaa maay wax ak yow am na fu ñu nekkoon man ak yow. da bu baax a baax moom xam na ma bu baax. nga xamante bu demee moom dina xam. xam na jaaji xam na forman ñu ne Grand Yoff boo yooyu nga xam ne moom la ñoom la booy gis tey di roy si ñoom. fii nag ragal yeewul fii quoi mais gis nga muus mu ndaw bi ngay gis nii dafa màgg léegi doon sibi sibi maanaam dafa doon gaynde te booy boo xoolee taxawaay xam ne kii du ragal. jàkkoon nag dinañ ko may xaaf minute bu ñëwul dinañ ñëw te bu ñëwee dinañ ko tër tër bu méttee métti. Zarko moom jarul nga xay may ay une minute yooyu Zarko ñëpp na leen gaynde day ñëw. non day ñëw man xam naa ne xam naa day ñëw Zarko day ñëw man xam naa loolu mais tamit bu ñëwee du fa fekk ragal bu ñëwee gaynde la fay fekk de. mais yow nga xamoo Zarko tur bu baax a baax Zarko moom du ragal. du mais déggoo li ma la wax. du ragal mais booy bii mu ko séqal du ragal te ay kàngam ñoo ko wër te expérience am lay doxee ak sunu xalaat ñun mais expérience moom koy wax si saako nga koy fekk. déet déedéet loolu dama koy bañ. booy bi fu mu juddoo ñun Grand Yoff ñoo ko jur. ñoo jur Grand Yoff ñoo jur Parcelles Assainies am déet ñoo jur Mermoz foofu yëpp ñoo ko jur kon fii la Zarko sox soso am déet dem Grand Yoff ah kon boog fii nga xam ne kon ragal mënu fee am am déet waaw Zarko na bis bu ñu jàkkaarloog moom mu xam ne lépp dëgg la quoi man fa laa a yem quoi aada nag maa ngi lay nuyu bu baax. daal ko ñu dañ di Arafat nag parce que kii Arafat la nekk. yow instant da ngaa baax rek instant <laughs> Ndakaaru moo billaahi. waaye bi nga xam fee nga jëlee. wóolu suñu mbër. gaan ñu doon dem di wàllyaan di far ay mbëru jàmbur léegi dañoo am suñu doom. Ah, suñu ngeen gën ngeen am mbër nag. yaa may dégg sonn ngeen toog. suñu doom barke Allah suñu frère suñu lépp maam xoolal mbëru gox bi barke alxuraanu karim kam moo yóbbu sa mbër te doo am confiance ci moom Ada Fass ñun fii la juddoo fii la yoroo xam nañ ko bu baax gaan fi amul ragal ay grand yëf yi di ñodde affaire yooyu noonu gaan mën na suñu yooyu dugg ci biir géew bi géew la entraîné na ba wow ko nga yëg am ñaan barke alxuraanu karim maa ngi dégg sànq ngaan Zargo xaw moo gën a a lii ci ci làmb lu ës boo ci defee dégrippant day nooy nepp xam nga dégrippant loolu nga laaj mécanicien yi gars eh, eh, ñun lii daanuñu xam nga booy bee bëriwul. waaw kay aadaay bëre Dakar mooy bëri te sànq gisoo ko fenn déggoo ko fenn. kan aada mi ngi fii di buusul fenn mi ngi fii teenaas si biir ay mbokkam si biir ay frère am di waajal lu rëy si kanam tuuti incha allah rabi open press bi ñu woo ñëpp si jàmm nag comprendre nga tey dafa war a yëngu waaw di ñaan nag xoolal autorités yi nekk fii ni ñu jàppale Ada Fass barke alxuraan karim stade bi dañ ko duy na gaa yëpp génn ñu dem bu kenn toog sa kër na ñëpp a génn. naka lay defee mais chantier fi mu ko yàgg defee rek te mu ko. foofu noonu la koy doraatee si kattanu yàlla. amul fenn. Zargo la ngay def jëlee ma lii Zargo nii la ngay def Zargo tànk Zargo eh, eh, Zargo Zargo Zargo. jugal aja eh jugal aja eh. eh, ah! lii demul esat lii dem esat mu ngi fële gaare. bii day jaay wala du jaay. bii day jaay. lii demul esat lii du dem esat parce que lii dafa indice. am na lu normal luy dem esat. Ah, yu bees sax mooy dem esat waaw. bii dafa mool nii. waaw mais lii dafa indice quoi am na lu ko gën a bees loolu mooy dem esat. waaw maintenant dañoo pare de. mais dañoo pare kay. lay ziar bàyyi wàll. kenn kenn may bañ wax Siteu kese gaa gis nga noonu la demee nag. lu war a Siteu bu añ. waaw Siteu bu añ de ñun bàyyi mooy loolu Siteu moom dañ koy séparé ñuy xale ah, di jàng école bëreeguñu sax waaw mais anti moom suma grand frère la. waaw moom waaw waaw moom moo loolu la waaw lu leer loolu la demee man ante moo jàngal lu nekk si man rek moo war a si man waaw loolu la demee nag mais Siteu moom dañ koy bëggee bu baax a baax. depuis bu ñuy booy ba léegi du tey quoi loolu la demee. dernier combat maag mag boo numéro 2 la woon. waaw dugg laa saa yóbbu top 5 mais Boy moom dama ñàkk quoi. waaw dañu bëri combat bi jaxasoo ñu ñëwaat at bi woote waat quoi bu daan ma. si la nekk. ah ñu ngi dox sama combat ñu ngi dox sama combat maag Modou Anta numéro 2. maag Boy waaw waaw. combat bu neex la mu taxaw léegi mu taxaw incha allah waajal bu baax. ñu ñëw si combat boo xam ne la incha allah seen mbër mooy bëre de. waaw dimanche la moom affaire moom gën a jege gën a yey ñun Fassane juddoo Fassane yaroo aaro ñoo yarandoo waaw tey bu ñu wax moom dañuy wax si moom di ñaan yàlla may ko ndam si kaw Zarko làmb xale koy def aaraa gën a féete ndaw. temps xale la jël mag ni mag bu ñu jàpp duma. waaw noonu la yàlla sax ndaw bu koy jaamu gën a soxla noonu la demee làmb ñu nag Zarko day xajal aara mu ñëw toog mu xaari leneen. moom ba mu waree tuuram ba mu waree jot mu dem ci kaw dafa échec day ñaan yàlla na booy bi yàlla mooy ko mu ci loolu dem xooli leneen. doole jéeg fi de moom nekkul mag yoo xam ne amuñ doole. waaw Zarko day xaar day sóob nii day nappaate rek dara nekku fa kopp la boo xoolee boo xoolee aada li nga xam ne moom Zarko yemuñu sax lu laa lay wax macha doole bàyyi fi bëri bàyyi fi te gëm naa ne moo dàq bëri Zarko bu ñu jaxasoo rek laa mu jeex ci kàttanu yàlla. bu amee xeex nag. waaw mais xeex ñu bagaar ñoom ñaar. aada day faat amaana daa wanegul xeexam rek ñu ñun ñuy yarandoo moom xam nañu que day faat. des fois mooy gis ñoom ñaar seen signature contrat da nga naan Ada Fass dafa ragal Zarko. non mais ko làmb xam nga stratégie la du yëfa de gëree naxante la rek naxante la rek làmb moom naxante yëfu gëree quoi ku la wax yëfu gëree la mu ngi lay nax waaw tey jii mun na ñëw dawal maanaam dawal ni ko dafa ragal te loo ko si biir géew bi la lépp di xewe ragalu ko bu naa ragal waa Fass rey ko Fass fi ragal juddoo fi bu grand laa lay tegal. instant yii nii combat bi jàll na sax ñu si leneen aar incha allah. loo koy conseillé. lu ma koy conseillé moom mu ñëw mu jox respect mu respecté Zarko xam ne mbër bu mag lay bëral combat bi la ko lamb ji jàpp combat bi la ko lamb di bàyyi bii mooy buntu lambam barke Serigne Touba fii mooy buntu lambam dana am ay combat di daan nag mu doon daan waaw daan ay champion nag dëgg mais la ko jàpp si lañ koy bàyyi. di nga wax ne mu respecté waa ji xam ni que moo ko jiitu si lamb ku la jiitu si nekk bu lënd moo leen fooy toogee respecté ko jox ko cër bu mat sëkk. waaw bërëg moom si dara tekk comme ci combat yi ma rek loolu leneen la amul leneen lu ci changé ndax Zarko mbër la comme yeneen bëri Zarko du dara loolu kese laa koy conseillé di ko ñaar yàlla may ko ndab bu sedd guy nag waaw. nangul day wax gis nga gis nga. wuyul Zarko la laa day xaar. da li may wax ma ko gëm. Zarko sim nañ ko bu baax day làmbaatu te bu ñëwee day daj. wër na borom daar ndax day maam moom day mbëkk. déggoo li ma la wax de. Arba day maamu ko xanaa. Ada Fass musul maamu. Zarko musul maamu. Zarko xanaa seetaanoo bërëm yow. Ada Fass def ndànk. ba ndànk nga def. ban nga mhm. moo songu. Coly Faye moo daw yooru. parce que gars yi ñemewuñ ko coow lay bëri mais gi nga xale bu ndaw bi yaa moom bu arbitre ne prix ba nga desi géew bi nga xam ne lépp dëgg la wóor na borom daaru. Zarko xanaa Serrano moog Baama Ndione. Zarko première minute la bu jeexee day jaaxle. nga ne. moog Baama Ndione. përti përti la mu daan ko. déglu ma la wax rek nga mu ñun përti përti daanuñu. boo ko moog moog Sadio la demee. përti përti la mu wër ko noom mu jaaxle penalty si làmb nga koy am di ñaax ñun loolu déggoo li ma la wax ñun doonu may loolu sax nga te du la ñaan wër na borom daaru. confiance fi nga ko xam xale bu ndaw bi xam lu muy bëree. xam li ñu làmb jaral ñun déggoo li la wax de ñun dañu xam làmb lu mu ñu jaral na borom daaru billaay walaay yàlla nañu yàlla suturaal pourquoi pas. Zarko ngeen am. Zarko beneen mbër amu leen ay yaaw man Zarko xam nga la moo jaaxal si moom mooy mbër yi ko gën a nekk si yoon ñoom dañoo dem immigré toog fa moom mu ñëw ne daa bëgg dara si làmb day sóob day xaar wër na borom daaru day jigéen ni waa Grand Yoff lay nax munul dara <laughs> billaay walaay munul dara day xaar day noppalu mag moo waral muy watu nga nii ndel di xale xalelu sax di këx këxlu billaay walaay amul fit Zarko amul fit li lay wax xam nañ ko moo xale bu ndaw bi kese buñ jàkkaarloo yooyu day abale lu leer laa lay wax bu taxawoon ma wax ko te làmb ji dina ko dégg laa lay wax ni amul fit day xànjar billaay walaay wa taalaahi lu leer laa lay wax li ma lay wax dama ko gëm gaa ñun fii la ñuy ba stade nga fii nii Fass. Grand Yoff ak stade sore déggoo bon Grand Yoff ñun de. Eh, moom ngay taxaw naa Ada Fass kese yow. gaan faale wu jëlal kii nii eh, waa kay. Oh, Siteu wax na pare. ah kii Siteu la. waaw kii moom Siteu bu Ada Fass a ngi nii Siteu bu Ada Fass dërëm Ada Fass di nga xam lépp dëgg la barki Serigne Bamba. non dañuy wax rek yox gaan wax rek dem la loolu amul. lu leer laa lay wax Zarko damay laaj léegi damay laaj. waaw combat bi. waaw da pour xeex wala pour bëri. combat bi laaj rek. pare nan lu mu laaj rek bàyyi Zarko daal bàyyi xoolal. lépp la balle est dans votre andi fekk ko fi. lépp fi nag am nañ lépp am nañ mëcc am nañ misil loo andi rek fekk ko fi barke Serigne Bamba. bu xaayee rek ñor na. waaw na. waaw bu pàccee takkal ñëpp. dara du takk suñun léegi yow lan nga may laaj si aada. parce que yéen dama instant yi aada bi ngeen di tekk si kaw. te xawle ko yéen bëree loolu ma nekk si kaw doomu faas la ñun mosuñu am doomu faas buy bëre. waa ñoo ngi koy door am nag mu nekk xam nga. amoon ngeen da ngeen koy ko am. Giribaud faas Moustapha Gueye laa waaw Moustapha Gueye waaw loolu. da ngay wax yaa ngi wax si atum belees instant yi la ñuy wax jamonoy tey. waaw noonu la demee aada rek la ñuy topp duñ topp beneen mbër bu aada instant nag balaa ngeen di am lu leen gën a leer kombaa bi taxaw dimanche incha allah waaw kooku moom man du ma si sax wax waaw tër rek tis tër rek tis waaw day gaaw lool ndax Zarko moom dafa yaakaar ne booy bi doo koy xaar booy bu ko xaaree moom mu am lu ko neex ndax mag la nuñ bërek mag di ko xaar dañuy ñëw rek fël ko jàll mag bu am doole yow mag xale doole mag ak doole xal du benn

gis na ñun su da naan ñun suñu lépp si Ada Fass la ñun. yow yaa ngi nii si Ada Fass ngay xëy. wax nga dëgg waxtaan. wax nga dëgg de wala. caméraman bi si Ada Fass la xëy su bopp man bi ma yeewoo ba léegi maa lay séen yaa ngi si koñ bi te yaa ngi fan. maa ngi Fass. Ada lan wax. Ada Fass. kon jeex na. Ada Ndakaaru Ada réew aada réew mi la nag léegi nekkatul aada Fass parce que nit ñi ñooñu ko gën a soxla. mais sérieux yow nag yow jege nga aada Fass yow sérieusement yow waroon conseil aada Fass waaw d' accord jege woo ko jege nga ko yéen a bokk même koñ. ñoo bokk wax yow est yow yow yow boo doon conseil aada Fass da nga ko demal ñëwal bëreeg ñëwal bëreeg Zarko. la laa koy wax. yow sën nga ne aada pourquoi pas parce que euh, yow fan nga teg ni Ada du xeex ak Zarko. Zarko dafa dërkiis Zarko loo ko woo muy. loolu mooy lan dërkiis ci ci la bokk. Ada Fass ko gën a dërkiis fuuf. billaay wax na ko keroog mosuma dem ardo te yow yaa may yóbbu ardo te dina ko waxaat après combat bi so Ada Fass dina bett ñu bari. combat fu mu yem si yéen bu ngeen daanee fan la fa ngeen fa ngeen mën ñun ak suñu mbër fu mu ñun ngay wax ñun combat bi yëpp suñu mbër moo ñu yitteel dëgg dëgg neexul rek. waaw bu baax. waaw ndey xumuree dagan ak Matar Ndiaye rek ak baax yu bees yi mu indi non. boo ñëwee boo mënul boo taxawee di seetaan sa da ngay fecc. non doo dugg doo dugg bu yéexee nii doo am place de nii rek gars yi ba foofu nii gars yi commencé nañ balaa deew doxoon jëf frère jaajëf aco koy tax na ci Wassare Lamb lii la indi leen tey gis na ñoo ngi fii si Fass ko ñu aara Fass ba léegi parce que moom nee mooy doomu réew mi mooy doomu Dakar donc euh, ñëwoon fii gis na reportage boo xam ne mu am solo boo xam ne moom la leen defal mu nekk loo xam ne bii komba ci Dimanche Zarko xale bi xew si jamono waaye kenn du Ada Fass fu mu toll nii parce que mooy doomu askan bi mooy doomu Médina mooy doomu Dakar boo dee nar faal boo waxee ba ma daanu ba ki Serigne Touba esaay eh, loo nga bëgg ma daanu mais moom du ma daanu faal <laughs> wàcc nag hmm. ngay soxor di bon caaw fii laay tëjee xale la la Wassare TV